nag di xamal ni Sa Thiès matul 1000 kees. matul matul 1000 kees. na ko loolu muy wax engagement am na fexe wut pexe yi may daal moo ëpp solo ay 1000 kees. jamais deux ans trois. ah bon dégg nga. jamais deux dama fa dugg duggaat fa duggaat naa. da ngaa dugg géejawaay. dama dugg génn duggaat génn damay duggaat damay génnaat. soo duggaatee. dina may dugg génnaat amu ma ñëw sama siège laa fa teg. ay tamit. waxuma waxuma la carte de ay neexal déedéet amoon na ci leneen lu ma waroon nekk. mais loolu moo échec moo doon jël. maa man dama dégg benn boy di am mu wax dafa soob rek jël avance. waaye dina ko daanu ba mu wóor. kenn su ma nar a sóor mbër si lam bàyyi jënd ak concorde soixante-dix mille mu demaat géej li jënduuma ko sax sama bopp laa xam li jënduuma ko sama bopp laa gëm sama bopp laa xam li ma liggéey laa xam ak kele koo àntal ngay ngay utilisé Moussa Ndoye bu ko yaraxtee ngembee man ñemewuma te yebuma supporter Moussa Ndoye ma yeb waaye buñ tëjee barrière di nga fa gis doo fu mu sëgg saa boobu lu may ko waxatuloo ko damay bañ lu ko daan damay bañ li mu bëree dañu mu bëri man combat bi may dirigé nu ma neex laa koy daane génn ci kaw maa moom ci suuf suba teer yi may dégg ndax yéen a may dégg yéen waa Yara ci kaw maa ci suuf fit bu koy daan yàlla dénk na ko doole ju koy daan yàlla dénk na ma Moussa Ndoye neexoon na tey ma njëkkoon ko def open press dama ko bëggoon poser question lan moo tax ma ak moom bu ñu jàkkaarloo du wax du sigg xool ma bu toogee sama ginnaaw da koy wax bu ma jàpp ko mu jeex jeex tak ñaari kaar laa ko def te yebuma supporter Moussa Ndoye ma yeb waaye bu ñu tëjee barrière di nga fa gis loo fu mu sa gisaat jërëjëf kontaan naa trop ndaw rabini sama yaay yi aw seen fay yéen ndaw jigéenu ndaw rabini ba ma jàppee ba ngeen jàppee ba léegi bàyyiwu leen bàyyiwu leen gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp i fay jërëjëf kon 100 pour cent Kër bi maa ngi leen di sant bu baax a baax dañ kote rawatina nag ki nga xamante ni mooy waaw Kër moom sant naa leen bu baax a ñëpp pare nañu combat bi pour feesal stade bi ñu bëri ko ci jàmm avancé sa kaw te saa yuy saa avancé sa kaw tam ci biir loolu soo fexee ba loxoom càmmoñam jàpp sa sa côté sa côté droit kooku moom moom moom moom moom daf daf la daf la yóbbu daf la yóbbu terre donc ci biir loolu xam naa ne Sa moom départ day indi xeex xeex mais xeex bi yëpp gëmu ko mooy mu ngi bugg jàpp devanture euh, Moussa rek pour su ko jàppee rek mën mën mën mën mën koo uh, bot botti jàllawle ja botti jàllawle lay lay lay def moom. kon xeex bi du dëgg ci moom. waaw xeex bi nag dina dina dina ko def lu mat lu mat deux minutes rek intense ba waa ji jóg su waa ji jógee rek mu jàpp devant day jàpp devanture bi su jàppee devanture bi rek si la koy naka mbotti ja jàll jàll jàllawle waaw. kon kon moom kon mbëru mbëru mbëru jàpp la mbëru ngemb la. waaw mbëru mbëru mbëru mbëru mbëru ngemb la mbëru ngemb la. soo gisee moom moom kañ moom ak seen moom ak euh, Balla Gaye yëpp ay mbër yu yuy jàpp yuy jàpp ngemb lañ. waaw moo tax ñu dangereux nag waaw. mais ko Moussa bu ko Moussa xañee jàpp bi du saa su combat bi du métti ci moom. mais Moussa koo xañ jàpp bi parce que li muy def mooy dafay dafay xeex contrôler ko ah pour mën ko jàpp donc Moussa Ndoye su su. su su su delluwul ginnaaw wala muy def ay ay pa ah, nu mu tëti ay wërwërloo toujours waay waaji daf koy jàpp te su ko waaji jàppee rek soo moytul du baax ci moom waaw. kon Moussa dafa Moussa lan dafa war a Sa Thiès jàppoo bi moom jàppoo bi arrangé ko kon. waaw bi jàppoo bi wu ko. Hmm. parce que ci biir loolu ah, ah, nu mu Sa moo sut comme moo sut nag toujours. Euh, li muy bëgg rek moo moo moo mooy jàpp bi waaye nag musaa Ndoye su bëggee xaañ jàpp bi mooy dafay def dafay def ay rotation rek rotation ak gauche wala rotation à droite waaye tam ci biir loolu waa du ko bàyyi sax mu def rotation boobu parce que day ñëw rek xeex xam dóorante dóoranteeg moom waaw. Hmm. donc kon Moussa Moussa lu ko arrangé ci combat bi. Moussa Moussa lu ko arrangé ci combat bi mooy waa ji waa ji waa ji jóg rek moom toxlu ko. loolu rek la seere ko seere ko su waa ji jóge jóge jóge crochet gauche crochet droit rek mu ne ko sirip waaw loolu rek loolu rek mooy avantage am su dul loolu su dul loolu daal pour mu pour mu pour mu pour mu pour mu am dam dara ci moom dafa du gaaw kon su la déggee boo ñaa bëreeg Sa Thiès noonu la Moussa Ndoye war a bëree moom tamit waaw kañ noonu noonu la mu dur ko tànk Moussa Ndoye ku mën a bëri la moo tax Sa tamit na jox cër Moussa waaw parce que mooy waaw gis naa jox nañ ko favori favori nag taxut a mën waaw favori taxut a mën de parce que làmb moom ku leen ne maa ko xam ne ko bàyyi bi dimas ko ku la jël si avance rek jàpp na ne mën na la daan ñoom ñaar ay bërikat lañ ay xeexkat lañ waaye Sa Thiès bagarreur la histoire bi civilisé solo gëddee day xeex ak yow foofu mu xeex moom mais xeex bi yëpp pour jaxase la la waaw Moussa Ndoye su doon man la su Sa Thiès di dawee di gëddi di xeex damay jël moom doo jàppe ko waaw mu avantage bëri waaw mais digalu ko mu xeex bu sax boobu moom Moussa waaw mën na xeex nii quoi mais dama gis bëri la gën a bëgg mais Sa Thiès xeexkat la bërikat la mais Sa Thiès xam nga sooy seet moo ko Balla Gaye ñoom duñu xeex ay direct ay bagarreur lañ dañuy dóor ay laaw gëdd la nga jaxasoo ñu bala administratif la egg la foo xamante nii seen mbokk mën na ñibbi mais nag na def attention si Moussa Ndoye parce que mën na bëri dëbb jëmm ji da koo gis da nga koy xeeb mais foo maigre la doole ji ëpp na ni mu waaw te lébu la te xam naa waaye yëpp ngi ci ginnaawam Sa Thiès tamit

trop ta gis gis naa entraînement am fi mu nekk nii mu ngi boo xamante moom macha allah mm-hmm. Moussa Ndoye dama xamul ndax combat bi da ko xaw a tuuti wala déet parce que xam naa yaakaar woon dina bëri Sa mm-hmm. parce que ay Sa Thiès ak Garga lañ doon wax waaw programme ñu woon loolu Sa Thiès sax xelam nekkoon ci Moussa far lay yàqu ñu ne musaa mu d'accord moom it moo lay wan ni jàmbaar la borom fit la te borom jom la xam nga mm-hmm. waaw mais saa ni ma ko gisee